donc année bi liggéey nañ ñu bëri ci li ñoo prophétie programme de formation à léco sécurité. ñu viser xalé yi parce que ñom ñoy ëllëgu Sénégal ñun euh, fi ñu nek ni toll nañ fo xamné perdre nañ lu bëri ci protéger environnement ba si suñu xalaat dañoo yaakaar ni dañoo toll ci réparer environnement bi mais maintenant à côté de ça il faut viser ñi nga xamné ne ñom ñoy diriger ëllëg ñom ñoy décider ëllëg ñom ñoy dund ak environnement bi ñu préparer leen ba nga xamné ñom ils auront lendemain meilleur donc ñu nekk ci programme prophétie bi avons ci joob ak CM yu bëri yi nekk surtout ci littoral bi commencé ici à Anne, dem ba donc on a fait tout ce tour on va continuer euh, l'éducation environnementale il y a un centre qui est dans le parc ci biir parc bi Hann bi am na centre éducation environnementale buy recevoir ay élèves durant toute l'année et à la fin de l'année nous jël ci plus euh, yi nous xarañ ñu primer d'ailleurs nous avons koy mujjee def fii le ministre Euh, présence sunu maire monsieur Sakho monsieur Babacar Mbengue sunu maire ak monsieur Sakho bu ONAS année bi ñu am jàppale Union européenne gëm nañ ni ñuy def ñëw nañ di ñu dimbali di ñu euh, accompagner si projet yi ñu am donc beneen volet de formation bi ñu def moom mooy VAD bi projet de dépollution bi mu ngi tàmbali bu ñuy seetal di euh, taaral géej gi il faut mu am benn accompagnement boo xam ne dañoo war a waxtaan ak ñi dëkk ci booru géej gi ba nga xam ne yëf yi bu sottee kenn dootul tilimala donc jël nañ ay jeunes yoo xam ne UCG ñëw nañu ak des volontaires du Festi'Vert ñu liggéey ak ñoom pendant deux jours bu ñu liggéeyee ba noppi wala pendant que ñuy liggéey ci dépollution baie de andi bi ñooñu ils vont faire des visites à domicile ñun ñoo leen di gunge waxtaan ak riverains yi waxtaan ak borom kër yi waxtaan ak sunu yaay yi sunu mag ñi suñu jigéen ñi si bàyyi xel ci dépollution baie bi. Si ko sétalé wala pendant créé lo xamné qui kenn dootul tour mbalit donc ñu en même temps dans les écoles et les riverains de la baie de Anne, tout au long de la baie de Anne, ba dem ba Mbao donc ci liggéey aussi. festival est ñetti fan mais li que nous xam ñun ñëpp mooy mbas doole concert bu ñu def concert pour ak mais dañ doon woo public bi

donc Mbassmi mi lu bari lu mais festival chaque année depuis plusieurs années ñetti fan lay beaucoup d'activités scientifiques avec des concerts euh, théâtre musique et tout invité public bi ñu ñëw ñu waxtaan ak